focus recrutement intérim Free moo leen di may seen forum ëttu Maodo Free ab kër guy jàppale entreprise yi ci lu aju ci liggéeykat yi boole ko ak xarañte bu wér dina leen oyofal tànninu liggéeykat yi ak nañu leen di yore ci bërëbu liggéeykaay bi Free day dox itam ci yokk xam-xamu liggéeykat yi ci càmbar ni ñuy doxalee ci liggéeyukaay bi ku ci bëgg am ay leeral mën nga 77 389 75 51 wala 33 957 62 85 wala nga envoyé email ci free arrobase free point sn mën nga itam gis ñu ci site internet www.free.sn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 على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على قصيدنا آه. واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا لسان على حبيبك خير لي كل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرام مولاي صلي وسلم دائما أبدا أيوة على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعصم القاسم مولاه صلي وسلم دائما مستوى على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المقطار قد قتمت والحمد لله فيه بدء وفي قسم مولاي صل وسلم دائما محمد على أبي أبياتها قد أعطى ستين مع فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما مستوى على حبيبك خير من كلهم كذا علي مع ابنيه وأمه ما أهل الغباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلعة وأبو عبيدة وزبير صادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجلوح الحبر من زالت به الإيار والآل وصحبه ولا أتباع فاتمة آه، ما جنى ليل دياجي أو بدا سحرا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلب مرضى عن شيخنا تجان قدواتنا شيخ المشائق يا طوبى لنا ظفر مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير فارق القوت والحمد لله في بدئه وفي ختمه مولاي صلي وسلم دائما ابدا أيوة، على حبيبك خير الخلق كلهم عن شيقنا تيجان قدواتنا شيخ المشائق يا توبى لنا غفر مولاي صلي وسلم دائما ابدا ايوا على حبيبك خير الخلق كلهم وعبده نجري عثمانا الذي انتشرت به طريقته يا حافظ الله الذي انتشر به طريقته يا حبذا وذر مولاي صل وسلم دائما يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار فليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا أقتار في القدم وسليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم فأنت كريم فالكريم من اتجاه إلى بابه أمن على كل نعمة سلمنا وقرعي باب الخير يا رب لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجأتي فأنت كريم فالكريم من اتجا إلى بابه يأمن على كل نعمتي شيخ سيد الحاج مالكنا فأنت كريم فالكريم من اتجا إلى بابي يعون على كل نعمتي يلا فانت إلهي يا مجيب لمن دعا دعوتك يا ستار فاستر معيبتي دعوتك يا ستار فاستر محيبتي دعوتك يا ستار فاستر محيبتي دعوتك يا ستار فاستر محيبتي دعوتك يا ستار فاستر محيبتي يلا فانت إلهي يا مجيب لمن دعا دعوتك يا ستار فاستر محيبتي سن سيد الحاج مالك نانا وانت الهي يا مجيب لمن دعاه دعوتك يا ستار فاستر محيبتي فأنت حليم يا ستور لمن جفاه ya Hayyu من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تنجد البركات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سند الكريم صاحب الخلق العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالا مبكي جولي ديني بكر يالا جنة وبنكو سنتك بربوتة بوغولة نعنتك موت نجل نتسجدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي أمبكي أكونتانتي جنة يحضر بذكورا وإناثا صغارا وكبارا وعلى يلينا السيد مام خليفه سيد أيده الله ونصره وأبقاه أمامنا incha allahu taala mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñoo baaxoo di seetaan ëttu Maodo TV ak Aynu Maadi TV nga xamante ni ñooy leeru xadara al malikiya fii ci département bu Mbour muy masharib ahlil xadaratayni li tasqina xadaratul ahmadiya mooy Aynu Maadi TV TV xadaratul muhammadiya di ëttu Maodo TV. te Cheikh Al Hadj Malick nekk ci biir jëmmi yonent bi benn bi di leeru yonent bi benn bi di leeru Seydina Cheikh ñaar yooyu yëpp nag di chance su département wu Mbour di chance su àdduna bi waaye di chance Sénégal yëpp kon ñu ngi ñaan yàlla télé yi yàlla yëkkati ko ba mu jëm ca kaw a kaw yàlla yokk matériel yi yokk moyens yi insha allahu taala mbokk yi ñu ngi am mbégte ak kontante ginnaaw bi ñu nuyoo maam Khalifa mu yóbbaale mboolem oustaz yi fi ak borom xam-xam yi di nuyu waa kër Seydina Muhammad ñu am mbégte ak kontante di dalal ñaari borom xam-xam yoo xam ne kenn du leen présenté ci gox bi ñu nekk muy Mbour tabarakallahu ki ci sama ndeyjoor di al oustaz Adama Badiane war a ñëw ak ñun ci thème bi nga xamante ni moom la xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour joxe woon daaw ci gàmmu gi mu am ay jeexital yu mu def ci doomu aadama yi jeexital yooya naka la est-ce que thème bi carrément dégg nañu ko ban impact la def yan jeexital la def ci ñun tabarakallahu muy thème bu njëkk bi te mooy wa qulu linnaasi xusnan bu ñaareel bi maa ngi fekkoo ak sama beneen nataango muy borom xam-xam di oustaz Omar Dieng moom itam mu war a ñëw ak ñun ci waxtaan bu am solo muy thème bi nga xam ne mooy thème gàmmu ren mooy bi hadiyi rasul tawajjahul ajyaan tabarakallahu moom itam dina ñëw insha allahu taala pour ñu gàttal damay ñëw directement ci sama invité bu njëkk muy oustaz Adama Badiane ñu bàyyi ko mu nuyoo ak mbokk yi dugal ñu ci temam mooy waqulu linnaasi xusnan loolu mooy lan na ngeen wax wax du rafet jëmale ko ci seen biir yéenu neen jëmale ko ci jullit bal jëmale ko ci bani aadama yépp waaye wax di li muy wax lu baax li am am am am solo jëf ju baax itam am na ko solo ndax amalu la yàlla wax kon bu sax aadama asalaamualeykum alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu sax فقال جل من قائل في محكم تنطيله وقولوا للناس حسنا وصل اللهم وسلم وبارك ومجد على من أرسل رحمة ومتمما لمكارم الأخلاق سيد الأولين والآخرين سيدي محسنين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إخواني في الله نعيكم جميعا بالتحية الإسلامية ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki ëttu Maodo mbokki Mbuur ak li wër département bi yëpp ñu ngi yëkkati kàddu yu nuyoo yu ànd ak siyaar leen ak ndokkeel leen si jataay bu tedd bi waaye di nuyu awalan xalifa bi muy Seydi Aboubacar Sy Mouhamadinil Mansour bi nga xamee ne moo ñu tànnal thème bu tedd bi fa tabarakallah di nuyuwaale mboolem njaboot Seydi El Hadj Malick yëpp waaye di nuyuwaale mboolem kilifa diine yi nekk si réew mi ak li wër réew yëpp di nuyu nag xasatan comme ni ko sax Habib waxee moom xalifa bi nga xamee moo fi teewal waa kër si Hadj yëpp waaye nuyu nuyu nag sama sëriñ Hadj Malick ak sëñ Mansour ka ñi nga xamee ne fa tabaarakallaahu si dara ko Seydi Hadji Malick la nekk fii si département Mbour waaye nuyuwaale seen imam moom imal Hadji Malick Fall Maodo ak mboolem ak imam yi nekk si Mbour ak li ko wër jiital si nag imaamu ratib muy alhaaji Ousseynou Faye ak Ibrahima Faye ak mboolem ak imam yi nekk si ginnaaw yi ak asaatiis yëpp xanaa li des mooy nuyu président groupe bi muy ëttu Maodo di alxaaji Ndambi Diop ak mboolem ñu ànd ak si liggéey bi nuyu suñu président alxaaji Abdou Fatou bi nga xamee ne moo jiite commission culturelle bi nga xamee ñooy taxawal yi di leen déggee di leen siyaar baax di nuyu nag sama mbokki bopp mbokki sowaali yi ñu ànd ak ngir fonk jataay bi ngir ñu ngi leen nuyu nuyu si Ababacar nag bi suñu mbokk jigéen yu fedd yi nga xamee ne lépp lu ñu jëngu si lislaam ne ñu gunge ndax ñu ràññee si nag xaaj yi soxna Diallo ak mboolem ñu ànd ak jigéen ñëpp di nuyu nag sama xarit Oustaz Oumar Diène tabaarakallah ñu yàgg koo xam si xam-xamam si man koo jox ma tabaarak ñu ngi lay nuyu di la wàcc sa wàcc waay Yàlla Muhammad yëpp sallallahu alayhi wa sallam xanaa li des rek mooy dugg si paas mu si thème bi nga xamee ne xam naa dañ si jub ci dara rek fàttali di ko mbokk jullit yi di nuyu nag oustaz Ndiogou Diop tabaarakallaa maa ngi koy dégg si groupe bi taxaw taxawaay thème yu am solo ah, si Mouhamadul Mansour ayadahullahu wa nasarahu atala baqaahu di nuyu waale nag sama sëriñ Seydi Aboubacar Abdoul Aziz bi nga xamee ne mooy suñu bunt si xadrata Seydi Hadji waa daal yëpp ah, ah, ah oustaz Mansour Cissé وقولوا للناس مشنا دي سيني وحنا من الله مكتب نبقى يدم وقولوا للمؤمنين حسنا فاي وقولوا للناس حسنا وحل وقت جك جتار شركة مولم كي بني آدم لك لفلو سيقن من صوي وقت وقت جك جسل لك وقت مو فتبارك الله كل لولو dafa matale wala umma bi yëpp rawatina umma islam bi nag ñu ngi julli si yonente bi sallallahu alayhi mi nga xamee ni moom moo wax alayka bi zikrillah wa tilawati alqurani fa innahu nuurun laka fi l ardi wa zikrun laka fi samaai yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi nee na maa ngi lay dénk nga saxoo tudd yàlla zikrullah di bàyyi xel yàlla di wéetal yàlla foo mënti toll ndax loolu mu ngi bokk si wax wax bu tedd bu rafet jëmee ko si côté jaamu yàlla deel saxal di jàng alxuraan ndax leer la ci yow fii si suuf waaye leer la tedd nga la yëkkatiku la si yow ëllëg asamaan mu teg si na waxsun lisaanaka illaa min xayri fexeel ba téye sa làmmiñ lu dul lu baax kon julli saa buy wax rek la muy wax na nekk lu baax saa bu demee ba yëg ni li muy wax nekk lu baax rek loola du waxam nopp mooy gën si moom fa tabarakallahu kon ci thème boobu la ñuy sëriñ bi orienté ci fàttalante mbokk ñu gis loolu xool ndax moom bi ko waxee daaw ak léegi ndax am na ay effet wala bu effet loolu nag suñ dugg si biir thème bi insha allahu taala dañ ko gis insha allah mu ne soo téyee sa làmmiñ lu ci lu baax si loolu rek nga mën a mën noté saytaan yi ne ma wax safaan jox la nga wax safaan delloo ma kon foofu jàmm du fa du fa am dafay am mooy pëccëxoo mooy jàmm bu ñàkk a am dal bu ñàkk a am ko indi mooy dama wax safaan nga waroon am ak dal wax wax bu rafet yow nga delloo ma waxu safaan ba olof dafay wax ne mbaam su la wéexee nga wéex ko yàgg moom yene am kon ñaari mbaam a fa nekk ku jullit en tant que jullit rek saa bu la nit waxee safaan sa réaction du mooy delloo ko safaan su la jëfee safaan sa mooy delloo ko safaan ba nga def kon waral bàyyi xel jàngale yi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne téyeel sa làmmiñ lu lu baax kon waxal lu baax am koom bu wëri ndax wax lu baax mooy digli lu baax laa xayra fi kasiirin min najwaahum illaa man amara بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس كل لب كل واحد منك أمر بالمعروف ولمنك نعي عن المنكر الله سبحانه يعني صح لأنك جم مرك أم تريد أن تحول يا الله بمن وقت جل بير من المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر julit yu góor yi biir mooy jullit bu baax boo xam ne fu mu toll day digli lu baax waaye day ter lu bon hakasa jigéen yi itam jigéen ju gëm yàlla te baax fu mu toll lu baax lay digle di la tere sa baan kon koo gis mu wéeteeg yow digal la leneen lu bokkut loola kon jàppal ne nekkul si groupe bi beneen groupe la dugg mooy groupe bu munaafiqiina al munaafiquuna wal munaafiqaatu baaduhu min baadin ya'muruuna bil munkar wa yanhawna anil ma'ruf yàlla nee na ndax fett yu góor ñi biir fu dugg si safaan ñoo la si dugal ndax ñoo lay digal safaan da tàbbi si ñu la toog fee di la di la kóob yoon nga kon ndax fett lu baax moom lu ba rek lay dugal kon ku la digal dara même su dafa wéete si pet wax la ko ngay góor ngay jigéen nga dem xool ne loolu bu baaxul soo ko nattee si diina jàppal ne kii naa fett la wala kenn la min minal munafiqina su dee góor la noonu la su dee jigéen loolu la fa lalam kon nag loolu matta suuraale la li ñu lay digal parce que léegi-léegi nit oo oh, la dama lay laayee bii rek fekk ab seytaane bu taxaw la lu yàq si yow moo ko yàq lu yàq si famille moo ko yàq lu yàq si ànd moo ko yàq te fekk na dafa la la wax oh, kaay ma laayee bii léegi-léegi sax mu nekk yore jëmmi kilifa nga xoolee ko jëmmi kilifa bu te fekk lam lay wax yëpp lu la day yàq kër day yàq pénc day yàq ànd day yàq ay wóolare day yàq barabu liggéeyukaay kon loolu ngir dit war na ko moytu war na ko bàyyi xel loolu la tax ñeneen xalifa bi bee salaat kaddu yàlla boobu parce que du da koo digle moom ndax digalu yàlla la aaya bi boo xóoloo di naas lu nan waaye asex kaana mujaddidan di isni subhanahu wa taala maanaam seex bi dafa yeesalaat ndigalu yàlla si nañ ko fàttali jaami yàlla yi ngir ñi mën a dund si pénc bi dundin bu sell bu dal bu teey loolu moo tax indi thème boobu la mais du kaddu ndax kaddu yàlla la ba xóolale naa buus naa loolu nag xamal yahudu wa nasaara wa xayruhum laa kon kon waxal lu baax am koom wala nga noppi te mucc parce que ñi alku yëpp li leen alak mooy boyal seen làmmiñ tàllal ko te si xaji Malick daf na lisaanaka in am ndaxta yaakul ko sa làmmiñ su sa waree nga boyal ko rek lu la neex wax moom mooy lekk kay li gi lay lekk gi lay fàtt lekk kon nag nañ téye làmmiñ bi lu lu baax di wax lu baax di jëf lu baax di jëf laa ci lu baax parce que itam mbir bi balaa am solo mu am gëm-gëm parce que yéen dafa wax لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه نيت كي انغم يالا دو مات دو جوك لول خولام جوك يالا نينا سو گيم يالا مو دوبال سو خول وان نؤمن بالله يهدي والله رب سينا عليه دين دي نينا نيت كي دو ام گم ام دو مات لول خولام موي جوك مي فكنا سو گيم يالا سا خول دو باخ سا خول دو جوك te sa xol su jubut sa làmmiñ di jub waaw wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisaanuhu kon ndeke làmmiñ su mu wax lu baax dafa fekk na xol ba am na leeru ngëm yàlla du ko tënk si du waxu ma war ku wax lu lu baax su dee safaan la même suñu poussé xëltali si safaan sax nga xam ne day war a doppi ndax yeneen bi sallallahu moo ne man samata najaa ku noppi su loo waxul wax mucc ku noppi su loo wax wax mucc kon nag am na juróom-ñaari junne yoo xam ne si ay yiw la yu ñu séddale si juróom-ñaari yi ñu am na juróom-ñaari junne ay yiw jërëjëf oustaz Adama ci ubbi bu am solo boobu ci nuyoo bu yaatal bu matale bi yàlla yàlla defal la yiw bu ngeen li ma dégg ci lim jot wax yépp rek li muy wax mooy li mu jégale mooy nañu wontu làmmiñ yi di wax lu rafet comme ni bi salaa waxee ne képp ku gëm yàlla gëm yawmal qiyaam fal yaqul xayran aw yasmut oustaz ubbi bi am na solo tabaarakallaahu tegal foofu sa baaraam maa ngi dellu si waat nga joxal ma micro bi oustaz Omar Diène mu moom mu ubbi nuyoo ñëw ak ñun ci ñaareelu thème bi te mooy bihadi rasul tawajjahul ajyaar allahu taala mu ñëwal ñu ci.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 على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن والاه الى يوم الدين بوكي نيغي سانتي الله سبحانه وتعالى دي جوليتي يونتي عليه الصلاه والسلام دي ياني الله moom bi nga xam ne moo yor njub di jubal ku ko neex yal na ñu yàlla làmb ci njubam yàlla mi nga xam ni mooy dimbali jàmb ko soob yal na ñu yàlla dimbali ci kattanam bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa mu mel ni ñi ngi nuyu borom kër gi di ko jox wàccuwaayam di nuyu nag kilifa kër gi di alxaaji njàmme mu ziyaara ñu mboolem ku mu njabootee ñi nga xam ne ñëw siq daara ji nag ñu jiital ci Mouhamadul Mansour mu yóbbaale ñu bay Abdou Fati Ñang ñu ziyaar nag maam Khalifa mu yóbbaale ñu mboolem ku ñu siqal xadara bi ci kër si wal Xaji Malik radiyallahu taala anhu wa arda wa nabi amin ñu ñaan nag yàlla ñu yàlla fayal maam Cheikh wal Xaji Malik ngir njàngaleem ak yaram yi nga xam ni jàngal na ko njaboot yar ko ko ba xamal ko bërëb bu mu toog lan moo fa yell ak lan moo fa jaadu Seexul Xaaji Maalik nee na bi azami zamani wal makaani taazimu taatin ma al isyaan Seexul Xaaji Maalik ne jamono bu nee ni mu toll ak place bu nee ni mu toll topp ci yàlla wala mooy ci yàlla noonu lay toll ndax dafa yéege ni bërëb ba toll kon bërëb bi ñu tok bërëb la bo xamni bu yàlla bàyyi xel la bu yonent bi bàyyi xel la bu ñu bax ñi bàyyi xel la fa tabaarakallahu ñu ñaan yàlla fay ñu mawlay sahul haji Malik ndax mo wax ni khudur majlis li ilmin faq li iyadati alf marid Seyxul haji Malik teg ci ni fastabin wa hakaza afdalu min shuhud alf janazah bila jahuudin wa alfi hajjatin wa alfi umratin waffaqana allahu li xayri xidma Sewul Hadji Malick nee na toog ci jotaay bu ñuy jàngale xam-xam ni yàlla nee na yonent bi nee na nee na yàlla nee na moo ma gënal nga sol dàll seeti junni ñu feebar ci benn bés. Maodo nee na demal birlu ji leerlu ji loola Sewul Hadji Malick nee na moo gën itam nga dem fekkee junni néew yu faatu ñu war leen jullee nga dox ak sa dàll ba fekkee ko te Abdoulaye Ibn Omar dafa wax ni. keroog yonent bi wax nañu wax bi ñu yéem yonent bi dane ku fekkee ku génn àdduna nga fekkee ñu doggali ko fekkee ñu koy sang wala ñu sang ko fekkee ñu koy jullee dellu kër ga jaale ko am nga yoon bu tudd xiiraat benn yoon rek mu ne abdoulahi abdoulahi ibne omar daal ne yonent bi lan mooy xiiraat yonent bi ne ko mislul jabalayni al azimayni mi ngi mel ni ñaari montagne yi nga xam ne ñoo tudd ahsabayni te Seyxul Hajji Maalik wax ko ca yonent bi ca gàddaayam ba ca Taif ba yenn ci boroom xam-xam yi wax ni xiiraat ëpp na loolu ndax montagne la woo xam ne gileem gu jël ëmb bees su dee wër na ko balaa dellu fa mu jóge dana jur doom ba mu am juróom benn weer doogu dellu fa mu jóge sallallahu alayhi wa am nga yoon bu toll loolu ci fekkee kenn ku génn àdduna ñu ko yeesal di ko waajal jullee ko jox ko boromam Maodo tok ci beurep ñu ne la yàlla neena na yonent bi neena na benn minute mo gënal yàlla nga fekke jooni néew yi ñuy julli so Hajji neena mo gënal yàlla jooni acc yi ñu nangu jooni umra yi ñu nangu mu tek ci nek ñaan ni waffaqana allah li xayri khidma kon koku xandal na njabotam yoon wo xamni ëlëk bu bu ak yàlla gërëma dem lay am fa tabarakallah mbokk yi ci daara ji ñu ziar leen ndokkee leen زيار استاذ ادم بديان جوكو واتي وايام استاذ محمد الحبيب ني جوكو واتي وايام فتبارك الله تم بي نك كوكو ديغ بي خامني بوروم خام خام مكو تالا واي يمول تي خام خام واي كو جيجو تي خام خام لا نده لان ما ورا لولو موي دكتور عبد الرحيم دا فا لير جمله لا اله الا الله من هذه الكلمه مستمله على ركنين واي تم بي مستمله على ركنين thème bi mustamil la ala ruknayni bi ci jiitu mooy rasul ñaareel bi mooy tawajjuhul ajiyaan kon alhidaaya rek doyoon na ci thème alhidaaya rek ñu jël ko waxuma la nag ñu teg ci rasul waxuma la ñu teg ci nag tawajjuhul ajiyaan fa tabarakallah kon loolu may wane ni borom xam-xam moo tànn thème bi bokki alhidaaya dafa séddili ko ci ñaar ci borom xam-xam yi am ñu ko yóbbu ci njett ñii tudd hidayatu tawfiq لي تدي هداية إرصاد وضلالة لي تدي هداية العامة تنيت الهداية بي بين بقولك سمرة الهداية التوفيق تلا يالا جبل يوننتي يوني لي هداية التوفيق تلا يالا تبخي نتو يالا يبابا خلين نتي دس نك يالا تبخي لنتي هداية إرصاد وضلالة لولا ورا نك نياري هداية منو نبقو sëriñ bi tànn ci nag benn benn rek baat boobu al hidaaya rek doyoon na thème waxuma la ne nga teg ci li ci tegu loolu waral thème bi ku jiitu ci xam-xam a ko tànn hidaayatu tawfiq wa hiya xasatu lillah al tawfiqu saddu li tariqi charri wa tasxiilu tariqi alxayr tawfiq mooy fexe ba yàlla tëjal la bépp bunt bu bon loolu waral yonent mbon da koo jafe waaye baax a ko yomb ndax yàlla moo ko tëjal bépp buntu bon yàlla ko ubbil ko ku gunt bu baax looloo waral nag zaliqa wala boog zuleyqa ba muy sàkku yuusufa fekk na yàlla tëj mbon mbon mbunu ko def looloo war yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam ba ay noonam dajee jël jigéen juy jaay boppam jaay boppam ba noppi jëlee ci ëmb ñu ne ko demal jiñ ko yonent yàlla Moussa ñu ñëw fekk ko nag ca jàkka ja ca mbooloo ma muy jàngale yàlla wane ni kii maa ko sama bopp du nit ko téye yàlla ne Moussa joxoñal liir bi ci biir bi nga laaj ko kuy sa baay yonent yàlla Moussa Abdou wax yàlla wax ak liir bi mu wax ba pénc mi dégg ni Moussa dañ koo sosal loolu mooy hidaayatu tawfiq yàlla nee na dama ci rocc loxo yonent dama ci rocc loxo ku baax man yàlla maa ko téyel sama bopp maa ko téyel sama bopp yàlla wax na yonent bi innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yashaa du Muhammad ko bëgg mu baax moy baax déedéet man yàlla ku ma bëgg mu baax koo koy baax ku ma bëgg mu baax mooy baax donte yonent bi amon na ciofel ci mam bi ko tey won jàppale ko dimbale ko way ciofelu adala won te yàlla baatu hubbu la utiliser te baat bi nek da fay jugi ci yàlla jëm ci jaam di delu ci yàlla قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كون باتو حب يالا رك كوكو attan تنك محمد داف دخل الدين تمد اك ماما موي ادم موتان يالا نكو انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء يالا نكو دو محمد دو كو بغ مو باخ ده سمام جي ري دغ لا يينه غوكو باخ واي مان يالا يينه مكو باخ داخ گمنا الك سفر موي كرم سيول حاج مالك نينا امنا كو واخ ني يبالنا التوحيد ني نكو لا مو نكو كو عباس فحل الفهول عباس على السلامي سيد الحاج مالي من اثبت الموت خبر خبر العلماء فعل الفحول عباس على السلام سيد الحاج مالي نك كي ني واخ كام فوري تي خم خم دي عباس نا عباس يونت بي موكو سيدل صلى الله عليه وسلم موكو نيانال بور يالا داف كو مو نيك جي تي خم خم يونت بي دان وان يحق لجميع قريش تفاخرا بابن عباس ومدرسته من له سؤال فيسال فليسال ابن عباس فليسأل فليسأل ابن عباس في القرآن والتفسير والحديث والأنصاب العربي من يب كتي أم لوي لاج لاج عبد الله ابن عباس سيد الحاج مال لنا كوكو داي موني ما مو يوننتي بي يبالنا التوحيد يولنتي بي نكو ويرول دا كين ديغوكو كون يالا ميغي روتي لو يوننتي بي اتانك محمد في تولو يالا تا نينا وان تريدنا نيل الوصول للحالق عليك على الهادي صلاه تصيبه سو الحاج مال نين بو بيغي اغ تي يالا جارو تي محمد محمد تخاو ني تي يالا يالا نكو دوني نده ليغا بيغي انكر يو محمد ليغا بيغا تي سما الله لا ماكو مو يالا وحات نا يونس تي علي صلاه والسلام ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء يو محمد منو جوبال كين تي صحابه واي من يالا لاي صوب رك مو جوبال كوما نيه وحتى يونس تي صلى الله عليه وسلم yàlla dafa seede ci yónni gi du moo yónni boppam du aadaa ko yónni waaye yàllaa ko yónni huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diin alxaq li yuzhiru ala diini kullihi wa kafa billahi shahida yàlla nee na man yàlla maa yónni muhammad yónniwul boppam waaye maa ko teg ci alhidaaya maa ko teg ci yoonu njub kon muhammad tegul boppam ci njub yàllaa ko ci teg loolu waral nag hidaaya di ñaar bii di tawfiq yàlla méngale ko boppam yàlla nee na yonent mënul dugal nit safara malaaka mënul digal nit safara jëf mënul digal nit safara yàlla ne man lay soob ci hidaaya ma dugal la safara yàlla ne usuru alladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu yabuduna min dunillah fahduhum ila sirati aljahim fahduhum ila sirati aljahim yàlla ne maay ne malaaka yi fëng leen usuru alladina zalamu fongalen ñi nekk ci kaw suuf di tooñ wama ma kaana yaabuduuna min dunillah ak lépp luñ doon jaamata du yàlla yàlla ne fahduhum na ngeen leen jubal ca safara kon yonente amu fa cër malaaka amu fa cër ndigal lay xaar ndigal lay xaar loolu mooy al hidaaya bi ci jiitu yàlla moo ko moomal boppam loolu mooy hidaayatu tawfiq yàlla nee na maa ko sama bopp bàyyi ma ko kenn maa ko téye di seet nag ci kan laa koy teg mawdana maninun yow